defee kon nag maam xalifa nee na ko anta yow kansul ilahi yaay ndàmbal yàlla wa suxru yaay ndëxañteefu yàlla wala isu yaay teddangaay yàlla walillahi al wali rasulihi wastu mi det tëddeef na naamaa wu xéewal yépp muy yu yëg yi ak yu ci yow de ndax xéewal yi baxee ko ci yàlla ci yaw lay jaar su ko defee nag yaay séddale anta yow yonantu bi baabul ilaahi yaay buntab yàlla anta yow almuraja yaay kuñ yaakaar ka bis bi nga xamee na ñañ yaakaaroon ñëpp daw nañ kenn ku nekk ne nafsi anta yow shifaaw yaay jëmmu saafara min addawaayil xulóobi ci jàngoroy xol yi jàngoro yu bon yi nekk ci xol rëy xañaan bëgg àdduna bëgg daraja bëgg parparloo bëgg ak càng bëgg halal bëgg doom bëgg lu dul yàlla ki ko mën a saafara mooy yow ah, bokk na ci sa tur yi sax saafi ni ko yàlla amee ca turam ya oh, waaye nag comme yow yaay faj jàngoro yi te yoo gën a naqaree faj ku def tawasul ci jàngoro biti yi bu yeboo di cancer bu yeboo di diabète bu yeboo di hémorroïde bu yeboo di prostate bu yeboo di gumba bu yeboo di ak tëf bu yeboo di ak laago boo defee tawasul ci sayduna muhammad na ko gumba ba defee woon bu ko defee tamit jàngoro jooju dana faju loola sikk amu ci ndax maam xalifa bu tuddee jàngoro ja gën a jafe le bi koy faja ngi kon jàngoro ja gën a xoyof ki koy faj tamit mi ngi nii muy sayduna muhammad ndax faj jàngoroy xol yi moo gën a garaaw moo gën a tiis moo gën a jafe faj jàngoroy yaram yi kon ki man la ni mën na lii kon nag loolu la ko defal yaay koñ yaakaar ci bu yowmal qiyaamee ñi wii jant bi yuur yaay bax su ko defee benn ndëggul xéeféer junney ndëgg dëggu ca nit ñay daw seen jabar ya ak seen mbokk ya ni ko alquran waxee yowma yafirul maru min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi li kulli mriin minhum yawmasin sha'nun yunihi ah daw nañ dem ca Adama mu ne sama bopp doy na ma ma lekkoon garab ga ñu daw dem ci yonantu yàlla noox mu ne maa romboon ak xaj di ko saboote ba xaj ba tontu ma ne saboote huloo ma sama borom nga saboote ne moom man lu ñaaw ndax moo ma ñaawal ah, mu mujj yaskuru mu doon tudd mu tuddee ko noox ngir li mu bëri jooy su ko defee tamit ñu dem ci Ibrahim mu ne maa waxoo ñetti wax yowutee woon ak dëgg ñu daw seeti yonantu yàlla ah, mu ne mii ñu sampoon bi ma jaamu maa ëpp ñëpp soxla. ah waaye dinaa leen takkal koo xam ne su ngeen demee di ngeen sooy ñu ngi seen borom mbaar mbala ñu ne ko ma nga nële kay mu ne daw leen dem fa ba ñëwee nag yonent bi ne ana laha li ngeen doon sàkko man maa ki ko moom jub di julli ñaar rakka sama borom wax malaaka ma jibril ne ko waxal sa waa ji ne ko irfa rasaka sal tuuta tasfa tusfa ci la jub nag ñu commencé ramu xam na ñu defaroon seen dossier yi directement safara mu ramu leen ñu jëmaal jana xam na ñoo xam ne faw dañ leen ràmm duñ xool seen i dossier yàlla nañ ci yàlla boole xam na ñoo xam ne faw dañ leen dugal safara fudd seen ndigg door leen a nag dugal aljaana ci ramam yonent bi moom mu ne nag su ma ramee ba pare sama tànneefu kenn dañ ramu ne yos foo axyaar yi min baad yi kon maam xalifa ne ko antal murajja yaay kuñ yaakaar ko ah boo fi nekkee nag gàtt xam-xam naan nit kenn du ko yaakaar ku yaakaar yaakaaral yàlla da nga gàtt xam-xam rek waaye koo xamee ne ni moo la gën a jege sa borom gën laa branché wu ci moom soo branché woo ci moom rek mu jottali la ku yaakaar kuy ku njub tas yaakaaram sa yaakaar dëggu kon nag yaakaar yonent bi pire mooy yaakaar yàlla ndax léegi-léeg yàlla dana tudd yonent bi tudd tudd ko ne maanaam wallaahu wa rasuluhu waaye xool ba mu leen waxee axaqu an yurduuhu waxut an yurduuhu maa de kon foofa benn leen a yonantu beeg moom fale mu ne tamit ah, man yuti rasul faqad ataa allah ku topp yàlla topp nga yonantu bi fee mu ne atiu laa wa atiu rasul kon yooyu yëpp yonantu bi moo ko jagoo moo tax looy wuti ci yàlla jaaree ko ci yonantu bi boo ko defee rek da nga ko mën a xam muy ngërmande muy yërmande muy ak topp lu mu mën a doon boo ko jaaree ci yonent bi rek da nga mën a xegg qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah kon mag ñi kenn du ñoom luñ liñ xam dañ koo daj ne làmbatuwuñ ko maam xalifa ne ko anta yow yonent bi kaasifun yaay aji huññi wa muxiisun yaay aji xettali lil kar bi ci njàqare kañ in atat naa bu ñu dikkalee ba saawu tartar wa daraa woog loru saa yuñ demee ba loru yow lañuy ñuy yaakaar nga xettali ñu ca loru loru ga su ñu demee ba nekk ci bë saawu muy ak tartar yow la ñuy yaakaar nga huññul ñu tartar ga dafa def lu ñuy tuddee lafun wa nasrun murattabun boo jëlee in atadnaal bë saawu mooy moom kaasifun ji boo jëlee daraawu moom moom muxiisun ji kon anta yow sayduna muhammad salaa salaam kaasifun yaay aji huññi kañ in atad naal ba saawu wa muqiisun yaay aji xettali in atad naa darraawu bu ñu loru dikkalee tamit yaay ki ñuy xettali kon foofa yonantu bi la jël directement ndax jaarale ko diggante moom ak boromam ndax lim bëgg comme jotewoo ci sa borom direct boo jotali ko ci ku joti koo ko jotali la lu rekk la su ko defee kon nag ah mbooleem xeeti njàqare yeeg tiis tiis yi mooy taxawaayu bis penc ba buñ fa xeggee fa ñuy jaar taxawaay ba yàgg ànd ak tar ku ñu sàkku ci moom ramm nga joxe ngànt ñun ñëpp ca yonantu ba la ñuy dem mu ni leen ana laxa maam xalifa ne kon naa la xam na naa la xamee na min ka tukkee koo ceew alhuda njub ku ko xamee zawahu borom njub bi fadlin ci ngëneel min karimin mu tukkee koo ci ku tedd ka di yàlla yu nii loo moo ko gëtale man saaw ki ko soob kon képp ko xam njub mi ngi ko xamee ci yow ci baax ak yàlla kon njub bi mu baxee koo ci yàlla ci yow la ko jaarale nga seddale ko njub nag ñaar la hidaayatu tawfiq dafa xam ci loxol yàlla la ne moom la yàlla waxoon yontu bi ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakinna laa yahdi man yashaa'u ak hidaayatul irshaad ci loxol yonent bi la ne moo tax mu ne ko innaka la tahdi ila siraatil mustaqim kon innaka la tahdi ila siraatil mustaqim jooja nag moo tax maam Khalifa ne ko naa la xamee na daa njub min ka tukkee ko ci yow sawohu borom njub bi fadalin ci ngëneel min karim mu tukkee ko ci ku tedd ka di yàlla yu nii luhoo moo ko jotale man saaw ki ko soob yow yaay waasitatu bi diggante jaami yàlla yeeg yàlla lu baxee ko ci yàlla ci yow lay jaar ci yërmande ci njub ci ngëneel ci may ci xéewal ci wërsëg su ko defee nag nga séddale ko ci kenn ku ci nekk lam mu ne ko bi ci yow aw saa dénkoon min xablu ci njëkk aadama aadama siisan siisa yow mii la aadama dénkoon siisa tuxtaaru di tànneef nisaawu jigéen ñi làkk ñaal la kay tatiiba ngir na teey nisaawu jigéen ña làkk la te lañ ko tuddee ci naxu nisaawu ji tatiiba da koo bëgg faayil tuxtaaru bëgg ko naayi bu faayil ñoom ñaar ñëpp ñu koy xëccoo ko ca jox xutal maanaam xutal keneen ka lam soxla kon nag tuxtaaru nisaawu kay tatiiba nisaawu kooku la ñu tuddee ta naaso ci xam-xamu naxu ma ngay junji xaqiqatul muhammadiya bi yàlla dencoon fa mu soob mu denc ko ba mu ko njëkk a denc da koo njëkk a jaarale ci ay kiiraay ba mu bàyyee ko ca kiiraay ya mu jaarale ko ko ci ay géej ba mu ca baxee ko ca géej ya mu door koo jaarale ci suñu maam Adama kiiraay yooya mu jaarale woon ka góor ak yàlla gu tedd ga way na ko maamalaaji Malik jëlee ko ca téere bu ñu tuddee yaquutatul ahmadiya mu ko indi lam defoon nafru moom mu way ko wayu rafet tabaarakallaahu baaxee ko nit ñi ñi man koo jëriñoo gannaaw si gi mu tudd géej ya kiiraay yooya nag tabaarakallaahu fenn fu nekk ak lafa fa yonentu yàlla muhammad sax dana la ko wax aa boo ko jëlee kiiraay ya am na ca kiiraay goo xamee na nii ñu ngi koy tuddee xijaabu safaati am ca bu ñuy tuddee xijaabu minnati am ca bu ñuy tuddee xijaabul qudrati moo ca jiitu xijaabul qudrati xijaabul azamati xijaabul minnati maanaam xijaabul rahmati xijaabu saadati xijaabul karamati xijaabul mansilati xijaabul hidayati xijaabu nubuwati xijaabu rifaati xijaabu taaxati xijaabu safaati lii mi ngi mi ngi nekk ay kiiraay yoo xam ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama sax na te jësaabaal boromam kiiraay gune ak jaamu yàlla gam jagoo moromam jagoowul ko danaa la wax kiiraay gu ne ak la fa yonantu bi sax ci kiiraay yi ci ay xat ak benn bu ne lam doon jaamu boromam xijaabu xudrati moo ca jiitu sax na ca fukki junne xat ak ñaar lam doon jaamoo yàlla mooy subhaana rabbil a'la ba fukki junne xat yaak ñaar jeex lii rek la doon jaamoo yàlla mu bàyyee ko ci dem ci xijaabul azamati fukki junne xat ak benn maa fa doon jaamoo yàlla subhaana alimi sirri wal wal xafi mu jigi mu bàyyee ko ci ñëw ci minnati di wax subhaana rafiil ala def nafa fa juróom-ñeenti junnee xat a baaxee ko ca tabaarakallaahu xijaabu rahmati la def juróom-ñeenti junnee di wax subhaana subhaana raufi rahim gannaaw si mu dem ci sahaadati juróom-ñetti junnee xat subhaana man huwa daimun laa yazulu gannaaw si gi mu ñëw ci xijaabul karaamati juróom-ñaari junne xat subhaanal aliyil mu gannaaw si gi mu sax ci xijaabul mansilati juróom-benn junne xat subhaana zil mulkil azim gannaaw si gi mu ñëw ci xijaabul hidaayati fukki maanaam juróomi junne xat subhaana rabbil arsil azim gannaaw si mu ñëw ci xijaabul nubuwati ñeenti junne xat subhaanallahil azim door a ñëw ci xijaabu rifaati ñetti junne di wax ne subhaanal malikil quddus gannaaw si gi ñëw ci xijaabu taaxati ñaari junnee xat ma nga fa doon sàbbaal boromam di wax ne subhaanal qadimil asali mu door a ñëw ci xijaabu safaati junnee xat la fa xam mu ngi doon wax subuhun rabbul malaayikati war ruux lii mooy fukki kiraay ak ñaar bu njëkk ga fukki junnee xat ak ñaar fukki fukki ak benn fukki junne at juróom-ñeent juróom-ñett juróom-ñaar juróom-benn juróom-ñeent ñett ñaar benn. kiiraay yëpp bokk toj te njëkk lile booba asamaan amagul suuf amul xaras amul kursiyu amul xaljana amul safara amul xaddunaak xalaaxira amul aadamaak siisaak noox ibrahima ak yépp ak Muusa amuñ yii jiitu na yile juróom benn téeméeri junne xat ak ñaar fukki junne xat ak ñeent ca xati yàlla ya aa ci la yàlla doora nag toxalee ko nag ci kiiraay yi gannaaw bi ko tojee aa mu ànd tàngoor mu war a pus fukki géej géej yooya baxaru nafrati moo ca jiitu ñaareel ba baxaru raxmati baxrul mahabbati baxrul qudrati baxrul karaamati baxru saqaa'i bu ko defee ñëw ci baxru safaati baxrul xikmati baxrul maarifati baxrul hidaayati lii la fa nekk di sax di sabaal di jaamu yàlla bala soob yàlla géej ya toj sama borom nag tabaarakallaahu gannaaw bi mu jëlee turam wi ñu tuddee Mahmoud kot ci ko bind ci xaqiqatul muhammadiya su ko defee a jaarale ko fii mu jaarale ko gannaaw si gi nag mu jël xaqiqatul muhammadiya boobu bari ay tur te lañ koy tuddee nekk di benn dénk ko suñ maam aadama aadama biñ ko ko dénkee dafa njëkkoon a nekk ci ndiggam fu mu toog malaaka yi wër ko rek di ko di màggal loola mu laaj yàlla lan la yàlla xamal ko loola mu ne kon toxal ko defal ma ko sama baaraamam nday bi ñoom nañuy bànneexoo di ko xool ci sama ndigg li man tamit may bànneexoo di ko xool ci sama baaraamam nday bi su ko defee nag kon foofu la nekk ba ca la soob yàlla aadama nag ba mu demee bay dem mu seet ci doomam yi ka ca gën a sell doomam yépp ay séex lañu moom kenn mu ko judd di kenn kooku mooy siita mu jël leer gi dénk ko ko dànkaafu ko ne ko nag boo fiy baxee koo seetal ki sa doom yi ki ca gën a sell nga jox ko ko ñun lay ñëwee ci malaayin ñëw lay ñëw ba ci axnuux mutawasilx ñëw ba ci noox di ñëw di toxalu di ñëw ba ci ibrahim di ñëw di toxalu di toxalu ba ci yuusufa di ñëw di toxalu di toxalu ba ci isa eh, isa sayduna isa di toxalu di toxalu ba ci abdul muttalib di toxalu di toxalu ba ci Abdallahi di toxalu toxalu ba ci naa Amina di toxalu waxaat ba ñëwaat ci borom leer gi loolu boo ko bëggee dégg mi ngi mel ni yow mi jël dugub rek yóbbu ko ca àll ba gas ki suuf ba mu xóot dugub nga defoon ci suuf moom mooy leer ak yonantu bi yàlla jiwoon ca kiiraay ya ji ko ca géej ya ji ko ca aadama su ko defee nag mu meññ gattax ba ba nekkaat dugub ba mu bañ koy bañ koy suul benn la woon ñaar waaye ba mu nekkee nekkee ne ay téeméeri téeméeri gub ah ba mu nekk masalu lasina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabatin ambata sab'a sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba loolu la mujj doon kon nag loola mooy dugub ci cosaan jooja mu mujj soqee koo foofa su ko defee nag siisa moom kenn mooy kenn doomi aadama yëpp séex lañ woon xam na lu mat ñaar fukki ëmb ak benn moom kenn moo cay euh, kenn kenn euh, yàlla nag dafay defal yonantu bi li gën a tumuranke rek ca xoolal Abdullahi waxoon naa la ko séex la te moo jur yonantu bi si sa mii aadama ko di kenn ah lu ko waral boo ko bëggee dëppale yàllaay def la gën a tumuranke jamono mu defal ko yonantu bi bi si di ñëw nekk séex mooy li nekkoon ñàkk nekk séex mooy li nekk tumuranke séex tumuranke wutoon ba leer ga naree toxalu ci aadama jëm ca moom yàlla def ko mu ñàkk a nekk séex naan ne ko yow doo xat-xatloo kenn ci sa biiru yaay ci leer ak yonantu bi ah jamono ji Abdoulaye di juddu xam séex moo nekkoon tumuranke ba màkk ku fa am séex dañ koy seetaan Abdoulaye juddu tamit tabaarakallaahu di séex séexa ndooram ba nekk jigéen moo tax jamono ju ne la fa gën a tumuranke la yàlla di jagleel sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa leer gay toxulu jaar ci siisa jaar ca ñam jaar ba xeg sewaat ci borom leer gi borom leer ga nag mooy sayduna muhammad maam xalifa moom la junj ne ko bi ka ci yow awsaa la dénkoon min xablu ci njëkk aadamu aadamu yow la dénkoon siisan siisa tuxtaaru di tànneef ni jigéen ñi làkk ñaal la tey tatiiba ngir na teey ni saawu jigéen ñi làkk ñaal la de waxuwa moom siisu mooy siisu al wasiyu mooy ka dénkaane woon leer ga a ca doomam ja moom lañ ko dénkoon bu la nee nga def ko maanaam wasiyu bi maanaa mu nekk ismu mafool ci tëggin ci tëggu gàccalaw maanaam wasiyu mooy kuñ dénk ka man kaana mooy ka nekkoon fardan di aji wéet xaytu kaana ba nekkee ab naawu doom ya tu a man di ay séex kon nag siisa mile moom lañ dénkoon waaye moom tamit mooy ki dénkaane siisaay ki nekkoon kenn te doomi baayam yëpp ak doomi yaayam ya nekkoon di ñaar ki seen biiru yaaya mu ne ummahatun ñoom ay yaay lañu maa xaara fat musu ñoo fàggu xattu mukk san ban bàkkaar muxsanaatu ñum sañeel lañ lam tan waa musu leen a jublu fax saawu njaalo yonentu bi daal yaayam yi xamul kenn ku ci mosaam doom te fekk xamuloo jëkkër ah kay koo ci gis rekk Ah, jëkkër jaay jiitu xam doom ga ku ci mos a nekk kuy mooy yàlla xamut ba daana wax ne lam yasalillaahu yunqilu nii min al aslaabi taahirati lil arhami zakiyati loolu la ko yàlla terale yàlla ne ko yàgg naa laa gis wa taqallubaka fi saajidiin sag soxalu ci way su ña kon naka jekk ni eh, nim nekkee cosaan lu sell ni la ko yàlla tànnalee ay cosaan yu sell maam Khalifa def istiaara bu rafet ci nirale askanam wa pereyaak caq bañ ko nose mu ne nas mu durin moom de caq wurus la fii timti issin mu nekk ci ràngam tedd nga wa faxrin ak ràngam puukare wa uluwin ak ràngam kawe min doonihi xiis na ko ci puukare ak ci tedd nga ak ci kawe jaw saaw biddiwu jaw saaw boobu nekk ci asamaan dafa nirale rafetaayu askanam wa ak kaweeg daraja ja ci caqab wurus boo xamee ne nii ràng ma boole perya mooy tedd ak puukare istihaara bu rafet la muy wane ni ku xamul nga amuloo puukare amuloo kawe mérite di bokk ci askanu sayduna muhammad wile ndax loola mooy ràng miñ nosee per ya su ko defee nag kon ku dajaloohut ci yow yile melo du mën a jàppandi ngay nosewu ci askan wu tedd wile moo tax mu ne ko làkk aji nekk la ñaxal la aslun cosaan fi saaji dina ci way sujjóot ja wa faroon ak banqaas te ay doom ak i sët fi saaji dina ci way sujjóot ña waxuluwun ak kawe fi saaji dina ci way sujjóot ña xalaat kawe na bii ci moom xunafaawu saxaaba ya xunafaawu ñi nga xam ne dañoo jeng diiney neen jëm ci diiney dëgg kon yàlla may na la ñett yu jafe may na la cosaan yu tedd may la ay doom yu tedd may la ay xàndandoor yu tedd léegi-léeg nit ki dana tedd fekk cosaanam teddut léegi-léeg nit ki tedd cosaanam tedd te fekk ay doomam duñ tedd léegi-léegi nit ki tedd cosaanam tedd doomam tedd fekk ay xàndandooram duñ tedd waaye yow yàlla dafa laa may xàndandoor yu tedd may la ay sët yu tedd may la ay baay yu tedd may la jamono ju tedd joo gane si nga ñëw tamit di ku tedd kon yow daal lu tedd jege na la lu tedd di rek sori na la sa askan wu tedd woowa la alquran di wax wa taqallubuka saaji diin sa doom yu tedd yu sell yooya ñoom nga daan taxaw di moom la doon yàlla di wax ne ah innama yuridullahu li yuthiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahirukum tathiira saxandandoor yu tedd yooya la yàlla doon wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruna bi ma'rufi wa tanhawna anil munkari ñett yi yëpp yàlla la ko jagleel te kenn xamu ko kudul yàlla naka noonu tamit wa judoodun ak ay maam am nay maam zawaa ibun ñoo di jubbu ya sawaa ibun ñoo di sang ya fil ci mbindeef yi kullu badrin bépp weer taman ca namu bépp maam al anaamu mbindeefu jamonoom ja istidaa woy sàkk la ñoo leerlu bii ca maam jooja mu ne ko yàlla may na la ay maam yoo xamee ne nii ñooy sa sangi jamono maam yooya kenn ku ci nekk weer nga ci sa jamono seen jamono ci ñoom lañ doon tànkaloo xam-xam di tànkaloo ca weer wa njub di ca tànkaloo ragal yàlla di ca tànkee wërsëg kon ni nga nekkee sa jantab jamono say maam tamit noonu lañ nekkee seen jantab jamono jamono ju nekk sa maam mooy sangab jamono jooja comme ni nga nekkee sangab sa jamono ji ak jamono yooyu ñëw ba àdduna bi tukki kon waju doodun ñoom de ay maam lañu zawa ibun ñoo di jubbu ya fil yaa ci mbindeef yi sawaayibun ñoo di njólëx teen ya zubatu mooy leen lu ne la ci gën a kawe su ko defee nag kullu badrin bépp weer al anaamu mbindeefi jamono ja istidaa way sàkk la ñoo leerlu bii ca weer wax anta yow taaxa yaay taaxa ca tur ya boo ko siifaree fukk ñeent la lay jox aa muy tolloog weer yi bu xamee fukki fan ak ñeent leeraay ga moom lañ ko waxoon taaha dëggal sa tànk ci hadratul qudsi ndax ma ansalna alayka alquran litusqa niroo hoog yonantu yàlla Moussa miñ ne woon faqlan alayka innaka bilwaadil muqaddasi tuwa aminu yaay kuñ hóolu ka waa màkka ñu wala ko tuddee hoon anta yow safiixul xalqi yaay kii ramu mindeef fi kañ lamma lam tasfayi ba nga xam ne ramu sofaaw way ramuña ñañ yaakaaroon ci ñoom ak ramu muy anbiyaawu yaak mursaluuna ya bu ñu dawee fëx jëm ca ñoom kenn ku ne joxe ngànt ne nafsi ci yow la mujj nga taxaw ne ana laa commencé nag di ramu kon najlu abdullahi yaay doomi abdullahi ja abdullahi moomu ibnu saybata mooy doomu saybata ja minhum bokk na ca maamam ya hashim mooy haashimul juudi haashimu tabema ak tayibu mooy ku teey ka meextaawu mooy joxe ak kon ba ku tabe la woon kon ñii say maam lañ abdullahi mooy sa baay abdul muttalib turam dëgg di omar waaye dañ ko daan wax saybatul xam ni ndax fa juddu digg bee jaaw ba ah, digg digg bopp ba weex tal te waxoon na ko avant muy juddu ne tuddee leen ko saybatul xamdi ndax digg bi jaaw ba da digg boobu dafay be jaaw kon nag kooku mooy saybatu hashim naka noonu sa maam la kooku mooy Omar waaye Abdul Muttalib turam dëgg mooy Amir su ko defee kon nag ñu ko daan dàkkantale Haasimul Juud ndax mooy ki njëkk lakk yàpp di ko wàjj di ko jox fuqaraaw yeeg masaakini màkk ya moo tax maam Khalifa wasafee ko ne daal bu mooy ku teey ka waaye meextaaw mooy joxe kon ba kon maam yaa ngoog Abdullahi mooy Baay Ja kooku dana la wax ku gàtt fan la. bi yonent bi di gé bi muy génn àdduna daal ñaar fukki at ak juróom la am ku barke la bàyyi na fi kër bàyyi na fi gétt ak gàtt bàyyi na fi jaam bàyyi na fi lu mat juróomi gëléem yii yëpp li muy gàtt gàtt fan marqué na dundam mu nekk histoire kon lii la ko yàlla defal waxaloon naa la ko ba may firi jaabat xifaaran bi aadan di naylul maraam waxoon naa la lim dund ak lim bàyyi ci ci ay xat ak lim bàyyi ci ay xalal waxoon naa la ko ah su ko defee nag moo ko jur Abdul Muttalib dañ koy daan tuddee jaama Muttalib bi waaye turam dëgg ah, su ko defee mooy Amir waaye araab yi dañ doon baaxoo eh, jirimab nit ki ñu koy tuddee ab jaamam Muttalib mii di mbokkam baayam moo ko yar Muttalib Abdu Manaaf a ko jur su ko defee nag ah, bi bi nga xamee ne ni baayam dëgg dafa génn àdduna Muttalib di mbokkam baayam yar ko ah, te arab dañoo baaxoo jirimam nit ki ñu koy tuddee jaamam ñu koy tuddee Abdul Muttalib ak ba demee di ko jëli fu mu romb bu ne woon sama jaam la sama jaam la kenn du ko def dara waaye bu ne woon sama doom la rek gaa yi dal ci kawam mën nañ ko su ko defee nag arab yi loolu moo doon amee jaam tuddee ko turu euh, rafet ndax buñ koy jaay mu gaaw a jar lu mel ni rabaax ak yasaar yu mel noona bu ñu amee doom tuddee ko turu ñàng lu mel ni asadu ak lu mel ni xajaru lu mel ni xarbu ndax gan nga ci moom ak njàmbaar ak gan nga ci ñoom tamit seen noon ya ragalee leen ko moo tax maamam yi yëpp kenn ku ci nekk tur wañ lay hooyee ak wa nga tudd nekku benn loolu mooy aaday arab kon tuuram dëgg-dëgg Abdul Muttalib mooy Amir ñu ko daan tuddee Abdul Muttalib waaye kon noonu la demee ñu koy wax Abdul Muttalib ndax Muttalib mii moo ko yar dañ koy wax saybatul hamdi ba mu juddoo digg bopp ba dafa bee jaaw te loolu la baayam waxoon ndax avant mu judd fekk na baayam génn àdduna mu joxe tur door a dem mu yaroo ca nijaayam ya Hachim nag Xomar mooy turam ki njëkk lakk yàppu di ko jox gan ña saahir baa ngi koy way ne Omarul Ula xasama farida li qawmihi wa rijaalu makkata musnatuuna ijaafu mu ne Omarul mu Omar moom Omar mu kawe mile wàjji na yàpp di ko jox ñi booba góor yi màkk ca maam yàlla abdul manaaf wa qusay qusay ca maam yàlla kilaabun kilaab ca maam yàlla ñoom ñëpp nu jabar daan lañ ñu tedd lañ abdul manaaf turam dëgg mooy muxiiratu loolu la olama euh, euh, wu siira wax dañ ko daan dàkkantalee ba euh, xamarul bita maanaam xamarul batxa moo tax maam xalifa tuddee ko badrul bitaaxi ngir taaramba naka noonu tamit daanañ ko dàkkantalee abu abdu samsin manaaf turu këram rek la xusay turam dañ ko daan wax mu jàmma ndax moom ci la yàlla dagalee ba ni fihri gi yépp moom nga dégg shaacir ba ne abukum qusay kaana yu doxaa mu jamaan bihi jamaa llaahu alqabaila min fihr waaye qusay li muy tekki mooy ku sori dafa sori woon nitam ña ah sori woon réewam mam dëkkoon muy màkka dem ànd ak yaayam fatimatu nekk ca bilaadu qudaata moo tax ñu ko daan tuddee xusa yi ganaar bi baayam gaañu noonu defoon ñu mel ni ku baayam gaañoon mu dem rek fekke ay nijaayam juddoowoon Saalum baayam dee mu ànd ak yaayam dem bawal dëkk fa kilaab nag turam dëgg mooy xakiim dañ ko daan wax urwatu dañ koy dàkkantalee kilaab dafa bëggoon rëbb te lu gën a bëri danaan ànd ak xaj yi xam ñu gëm ne sax kilaab bàyyeekoo ci kalbu waaye mi ngi bàyyeekoo ci mu mukaalabatu arab dafay wax ne kaalabtul aduwa mu kaalabatan wa ban maanaam xeex naag noon bi di doon not lanteeg moom ba mujj naa not ko kon nag loolu mooy aaday arab jël seen doomi tuddee leen tur yu ñàng lu mel ni kalbu asadu vi bu xarbu ak yu mel noona jël seeni jaam ya tuddee leen tur yu rafet buñ leen di jaay bëgg mu ñu gaaw a jar lu mel ni marsuuq rabaax yasaar ak demeet noonu lañ baaxoo xoon maam xalifa ne muratun muratu ca maam yàlla kaabuhum seen kaab ca maam yàlla kasaa naka noonu lu ayu xaalibun xaalib ca maam yàlla su ma topp fiiru ca maam yàlla ñoom ñépp kuramaaw ñu tedd lañ ku tedd di xamul ca maamam ya muratu kaaba ko jur mooy maami limu giiri qurayshi kaab kansul asraar wax na ne ku yëkkati dara woon ci arab yi ci moom lañ daan taarixalee sax njëkk a amul fiil li ko doree fi mu juddoo ba fi abraha di feeñee ànd ak ñaayam ñu ne day toji kaaba ga taarix ba moo doon kaab diggante moom ak fi yonantu bi juddoo juróomi téeméeri at la ak juróom benn fukk foofu lañ doon taarixalee bi aami fiil ñëwee ñu mujj di taarixale ci amu fiil mu gi bi yonent bi defee gàddaay ñi mujj taarixale ci euh, gàddaay ga lu ay mi mooy tasxiiru euh, euh, tasxiiru maanaam lëyu muy laa di maanaam nagu njaaxal lañ koy wax waaye moo tax ñu koy tasxiir lu ayu dégg xaalib turam dëgg mooy adram mooy ko amut bëñ mefre ba njabootam gi dañ daan tuddee ba du banu Ah, waaye fihru zubayru nee na askan yépp ci ñoom lay dellu ci quraysh yi su mooy fihru rek loolu la iktifaawu wax turam eh, yaay yaayam moo ko tuddee eh, maanaam quraysh di ko dàkkantalee fihru moom waaye loolu moo doon turam su ko defee kon nag moom la wax noonu mooy mooy mooy fihru moo tax mu ne Malick Malick ca maam yàlla nadruhum seen na darma ca la kinaanatu kinaanatu minum ca ñoom la bokk wa xusaymun xusaymu ca la wa mudrikun mudriku mu la ba ca la bokk ñoom ñëpp sorofaawu ñu tedd lañ nadir ci benn ci riwaay ñu ne mooy Quraysh waaye la gën a lëng daal fihru mooy Quraysh yaayama ko tuddee Quraysh dàkkantalee ko fihru boo dàkkee askanu Quraysh yëpp ci ñoom lay dellu su ko defee nag moom mile di nadru mooy ki tëddoon gént nekk ci benn ron garab mu tëdd daal ca peron wu jàkka ja ca xaram ba genn garab gu sëq génnee ci ndiggam li ame ay bànqaas yu lëw yu toll ni limu ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñi mu daw dem ca benn buqaaba wax ko ko mu ne ko sa gént gii bu dëggoo xéexée yàlla na la jox cër boo xam ne ña jiitoon kenn mosu koo xam waaye yàlla defal na ko ko ci moom la yonantu yàlla muhammad soqee ko kinaanatu boo demee ca kansul asraar wax na ne kinaanatu dafa doon noon jabari baayam duñ tuddee baratu ah ndax loolu moo doon aaday arab ci jaahiliya bu sa baay dee yow mi nga xam ne yaa mag ca doom ya góor ya yaay doon soxna sax ñu ne lool fay dàqoo anteeg li yonentu bi daan wax ni kullu naa nikaaxun walay sa fii naa sifaaxun maa wulittu min sifaahi ahlil jahiliya ñu ne déedéet nag ndax loola xaraamutoon njëkk bi alquran di wax ne wala ma maa nakaxa aba ukum mina nisaayi illa ma qad salafa la yàlla wax kon loola dara ne wuccoon ci bu njëkk ba comme ni nga xam ne jamu baynal uxtayni dara nekkute woon gannaaw si gi la door a xaraam xusaymatu tuddee nañ ko ndax mooy firi ak dog ci moom ci la leerak baayam yu dogoo muy leer ak yonantu bi soqee ko ca mu diri këtu olamaa wu siira ñu ne du turam dëgg de turam moo doon Omar waaye baayam moo xamoon gëlëm gu ko réer doomam yépp daw di ko seeti kenn ku ne ñu jaar càmmooy nday joor penku sow moom moom moo ko jàpp moo tax ñu tuddee ko mu këtu ji firi ak jot suma Ilias topp Ilias ca maam yàlla waaye baxdahu ak nekk la ci gannaaw Ilias mudarun mudar suma nisaaran topp nisaar ca maam yàlla maadun maad ca maam yàlla neex ma baax na walaaw toftale gi ma ko toftale maam man maam maam Khalifa Niass toftale gu rafet yal nañ ko yàlla fayal Ilias mile tuddee nañ ko ko ba ko bàyyam di xam dafa naago xoon ci am doom dem ba nekk màgget door am doom la dal Ibrahima moo ko dal tabaarakallaahu la dal timit Ah, Zakariya ci Yaxya moo ko dal Ilias nag jullit la woon ni ko maamam yi donee woon daanañ toog rek dégg yonantu bi leeram nga di labbaykawu ci ndigg Ilias li ne labbayka laahuma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka ñëpp di ko dégg nawleem ba xaritam ba soppeem ba Seydil Haaji Malick wax na ko ca nuunu ba ca baxru waafir wa fii sulbin li Iliasin yu labbi wa yasmauhu lmawaasimu billadini kon nag Ilias moomu la ñuy wax ku baax la woon ku tedd la woon moo doon sangu nitam ña dañ ko daan tuddee kabiru xawmi yi nekkoon sayyidu asirati yi mooy ki njëkk a yëkkati gëléem gu rëy rëy rëy ko kaaba ga loolu la siratul xalabiya wax di yonent bi daana wax ne laa tasubu Iliyaasa fa innahu kaana muminan bu leen saaga Iliyaas de jullit la woon ko xamoon xikma la comme ni ko Luqmaan amee woon ki nitam yi noonu la ko meloon mudar tamit yonentu bi nee na bu leen saaga rabia buleen leen saaga mudar ñoom ñaar ñëpp dañoo gëmoon yàlla laa tasubbu rabiata wala mudar fa innahuma kaana muminayni yonentu mos naa dégg benn ay yaaram muy wax naan inimri un ximyariyun xiina tunsibuni laa min rabiata abaayi wala mudar yonentu bi ne abadaka min allahi wa rasulihi ne man asi laa bu bokk ci bani himyar bu ngeen may askane man mi bokkuma ci rabiata bokku ci samay baay mu dar bokku ci samay baay ku génnee ñu tedd ñii nga xam ne ku leen xam da nga wax ne ulaayka aba yi fa ji naa bi mislihimu ida jamaan naa yaa jarirul majaamiu dëgg-dëgg ñi kuñ doxut sa baay ku mën a doon sa baay tamit ñëw ko gën mu ne tamit maat ca maam yàlla boo demee moom ku bëri woon xare la xànd ak banu Israil mosta xare lu dul ba gañe na maam xalifa ne su ma topp àdd ca maam yàlla bittifaaqin ci dëppoog boroom xam-xam yi walakin li fi nekk nag baxdawoo gannaaw àdd naan xatta xaalafa la wuutee an baawu solo yi gannaaw àdd daal xam na ñu koy yëkkati ba ca yonantu yàlla ibrahim xam ñu koy yëkkati ba ca yonantu yàlla noox am ñu koy yëkkati ba ca aadama waaye maam xalifa nee na loola muxtalaf la moo tax mun ci xatta xaalafa waaye gis nga bam ne suma xadd naa ne bitti faaqi li ko doree ca yonantu ba ba ci xadd naan muttafaq la ñëpp ci dëppoo kenn du maam ci mën a jàngale andi na ittifaax ak ixtilaaf mu ne kon muxtalaf ak maanaam muttafaq ñoom ñaar ñoo xadd naan ba ci yonantu bi muttafaq la moo taxoon yonantu bi ne laa tarfaxoo nii fawqa xadd naan bu leen ma yëkkati lu kawee xadd naan su ko defee timit ah Ibnu Abbas dafa daan wax ni ku yëkkati maami yonent bi ba ci Adnaan rek ah, ak nar dal na ki sa kaw gu bàyyeekoo ci Ibnu Abbas loolu la wax mu ne dangay ngay nar ah Maam Alaaji Maalik wax na ko ca Xilaa Samba wa mun jaawi sa Adnaan fa taksi boo jaa amina àll bi ah, ca waxam ju siiw jooja su ko defee kon nag léegi-léegi kon nin yëkkati ko waaye kuy xem daal xamal ci fa yonent bi xemoon soo ko defee doo xam benn problème maam xalifa ne ñoom ñi basharoo bégal nañ xawmahum seen nit ña bi ci yow bi kulli zamaanin ci bépp jamono bi fi xadd naan ñëwee bégle na ci yow maab bégle na ci yow nisaar bégle na ci yow ba tey mudar na ci yow iliyaas bégle na ci yow ba mudarul xamra ñoom ñépp ba ca abdul mutalib fu mu a ñëw rek yaa ngi bégle sa nit ña ci yow comme naka noonu te was tabsarat sàkku naa bégle bi ka ci bi tamit anbiyaaw yonantu yi yonantu yu ko fi jaar bégle na ci yow ci yow la yonantu yàlla Isa waxoon ne wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ma du loolu moo ko waxoon yonantu yàlla Moussa bégle na ci yow yonantu yàlla Souleymane tukkee mu rëy ma ba mu ñëwee fa madinatu mu nekk mu nekk àll kertande mu taxaw ne fii ma taxaw moo nekk mu jëkkër ak gàddaay ak yonantu bi mujj ci yonantu yi. ñu laaj ko ne ko sa digganteeg moom ñaata la àpp pare mu ne junnee xat mu ne yéen ñu ko fekkee na ngeen ko jotal ñu ko fekkeewut moom sax jaaroom ba Seydunaa Muhammad la ca bindoon ca jaaroom ba di ko wéttalikoo ca turam wu sell wa ak ne kafaa bil mawti waaxisan waxee yonantu bi foor boobu ne dee doy na waaraate kat gis nga ko tubayul xemyéer yu moom dafa bañ ba far tabax ko ay cité dëkkal fa ay boromi xam-xam ka ca ëppoon may moo doon Ilimaan Ja kooka ci la Abu Ayyub al Ansaari yu soqee ko moo tax bi yonent bi ñëwee fekk na jotoon na leetar mu def directement kër Abi Ayyuba moo tax dalut ci kër Abi Ayyuba de këram la dal ay maamam lañ tabaxaloon kër googa moom Abi Ayyuba ñu doon ngir ne yonent bee ca war a dal ñu ko koy tertoo moo dàqoon ca cité ba kon euh, yàlla mbiram xamut tandu loolu lépp danaa ci xeg si njàngale maam xalifa danañu ko jàngal maam xalifa mel ni fa wàccee boppam di tatagal yonantu bi wàccee boppam mel ni yonantu ya jiitu woon yonantu bi ci saahir wàccee boppam ca rooxoom gi nga xam ne moom mag jëmmam ji nekkoon ak marhaban taqooxal ak yaatuwaay wa ëhlan taqooxal ak ñooñ wa sëhlan taqooxal ak jàppandal bi xudóomin ci dikk goo xam ne fii aji nekk nekk la ci sifaaw jëmmi saafara kaw ni ñeel mi def bi hay waay maa ngi lay tatagal ne la doo fi xaddee xàll bi yépp ak kër yi sa sa place la wallahi doo fi tumuranke ñi fi nekk ñëpp say ñooñ lañ sa xalal ji xalal ji fi nekk yëpp jàppandi na la yow sa ñëw gile mboolem lu doon xeeti jàngoro dafa ñëw pour di ko saafara kon maa lay tatagal aa ah, wax la joo xam ne arab yi boo demee ca téere bu ñu tuddee tàcc wax na ne sayfum ni si yasan mooy ki ko njëkk wax baat boobu marhaban wa ahlan wa sahlan mooy ki ko njëkk a wax ñu ne xamaat na keroog bañ ko falee ca nguur ga waa si def délégation bu mag dem di ko ndokkeel yi Abdul Muttalib ba ko jiite maami ti boobu ñu ko defee ngi dem di ko ndokkeel yi ñu ne bañ demee la leen wax ne marhaban wa ahlan wa naqatan wa jamalan wa mulkan su ko defee tamit nag ñu ne daal mooy ki njëkk a wax loolu loolu daal am na ñu wax loolu ne Sayf ibnu si Yasan daal mooy ki ko njëkk a wax su ko defee kon nag yonantu baa ngoog maam xalifa ne fastanaara leer na samaanu jamono wan saaxas sori na xanu walis ko kullu diiqin bépp xat-xat aa wan saaxa huññeeku na xanu walis ko kullu diqin bépp xat-xat waxamati matale na sarraawu xéewal yi sa ñëw gile dafa ñoo dafa ñoo jañal xëccal ñu jañal nañu leer gu jamono leerloo maanaam xëccal nañu leer gu jamono leer loo jañal nañu xat-xat ak lëndëm lëndëm ak tiis tiis gi fi nekkoon aa fekkoon na fi ku man sa moroom duma ni ñi jël sàngara di ko naan ni ñuy naanee meew lu ñu xëppali nit jaay ko ko doole aa ah, nga indil ñu leer ak ku man sa moroom ku ëpp sa moroom doole yërëm ko te nga dimbalee ko ko ku ëppale sa moroom xalal na nga ko suqalee keesi ah, kaasi leer sàngara ya ngeen doon naan ñu soppee ko kaasi leeri alquran kon sa ñëw gi dafa ñoo xëccal jañal ñu xëccal ñu ñu leer ak naataange ak xeewal jañal nañu xat-xat ak tiis-tiis ak ñàkk ak ku man sa morom duma ya arab yi gën a raw rabi yi di mbuga laajte kenn ku ci nekk nang doon def yooyu yëpp sa ñëw gi mu ngi ci dimbale kon tuddal naa la maami yonantu bi li ko doree ci abdul muttalib mi jur baayam ba ci àddunaan doonte xam na ñuy lim ca naan ba ca Noox ba ca Ibrahim ba ca Siisa ba ca Adama waaye yooyu ñun dugguñu ci fi maam Khalifa ngis xutbub yàlla bi xam rek lañuy ñuy waaye nag maamam yile boo demee Ibnu Hisaam wax na ne kenn ku ne xam na njaboot goo xam boo ma toppee ki siratu Ibnu Hisaam ma wax la li ko doree ca maat ba ci Abdul Muttalib kenn ku ne ñaata nga xamoon ci njaboot boo jëlee maat ñeenti doom la am ci dundam lépp moo jur nisaar moo jur xudaatu moo jur xanasu moo jur iyaat lii la amoon ci doom xudaatu nag moo doon taawam boo jëlee nisaar ñetti doom la am moo jur mudar moo jur rabiatu moo jur anmaar boo jëlee mudar ñaari doom la am ilias ak aylaan boo jëlee ilias ñetti doom la am mudrikatu taabixatu ak xamaatu boo jëlee mudrikatu moom ñaari doom la am xusaymatu ak xusaylu boo jëlee xusaymatu ñeenti doom la am kinaanatu asadu asadatu hóonu ko defee boo jëlee kinaanatu ñeenti doom la xam nadir malik abdu manata ak milkaan boo jëlee nadir ñaari doom la am mooy malik ak yaxlut boo jëlee malik benn doom la am moo ci gën a ñàkk njaboot mooy fihru boo jëlee fihru ñeenti doom la am mooy xaalib muhaarib xaaris ak asab boo jëlee xaalib ñaari doom la am lu ayu ak taymu boo jëlee tamit lu ay ñeenti doom la am ak amir ak saamatu ak awfu boo jëlee kaab ñetti doom la am mooy ak maanaam muratu ah, boo jëlee maanaam tabaarakallaahu loolu la am kon loolu la xamoon ci doom mooy maanaam euh, maanaam muratu ak ak xuddayu ak xusaysu boo jëlee maanaam muratu moom euh, ñetti doom la xam mooy kilaab xëymu yàqsatu boo jëlee kilaab ñaari doom la am yu góor euh, mooy xusayu ak zuhratu xusayu moom ñeenti doom la yu góor ñeent ñeenti doom yu góor ak ñaar yu jigéen moom moo ca am jigéen muy Abdou Manaaf Abdou Daar Abdou Onsa Abdou Kusay su ko defee tamit doomu jigéen ya mm, dégg nga ak taxmur kon ñii la amoon doomu jigéen ya nag tabaarakallaahu ñaar lañ mooy taxmur bintu Kusay ak baratu bintu Kusay boo jëlee Abdou Manaaf ñeenti doom la am mooy Hashim ibnu Abdou Manaaf ak Abdou Samsin ak Muttalib ak Nawfal su ko defee xam nañu wax ne juróom-ñaari doom la am ka ca mooy Abu Amrin ak Tumaadir ak Xaabilatu ak Xayatu ak Raytatu ak Ummu Axsam ak Ummu Safi Sufyaan boo jëlee Hashim ñeenti doom la am yu góor ak juróomi doom yu jigéen mooy mooy maanaam Hashim moo jur Abdul Muttalib moo jur asat moo jur aba safi moo jur nadlatu moo jur safaawu moo jur moo jël maanaam doxayfatu moo jur roqiyatu moo jur xayatu euh, ñooñu ñooy doom yu jigéen yooyu ñu mujj a tudd Abdul Muttalib doomam yi dana mat fukki doom ak juróom-ñaar la am ci ay doom boo toppee téere maam xalifa bi dana la ko jàngal ñu góor ñaak ñu jigéen ña kon lii mooy njaboot ak bi mooy njabooti ay maamam waaye boo jëlee nag tabaarakallaahu Abdallaahi moom benn doom dong la am mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonantu bi mu jur nag am na juróom-ñaari bant ñett ya ñooy góor ñeent ya ñooy jigéen nii la njabootee kon booy xool ci mbooleem maamam yi la ca ëpp njabootuñ ñeenti doom ñett moo ci gën a bari ka ca gën a néewle benn doom la xam daanaka timit boo leen seetee ñett a ci xam doom yu jigéen ñi ci des ñëpp góor yi kese lañ xam parce que am na ñaari doom yu jigéen Hashim am na juróomi doom yu jigéen Abdul Muttalib am na juróom benn doom yu jigéen ñi rekk ci am doom yu jigéen ci ay maamam kon lii mooy maami maami yonantu bi noonu la demee noonu la ko ko yàlla defalee moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon kenn du yonantu bi boo ko jëlee timit moom yonantu bi xam na ay maam maanaam yu jigéen ku mel ni aminatu bintu wax bin demeet dem ba ci bintu zuhrata nu kilaab ibnu murata nu kaab lu ay xaalib ibnu fihru nadir kinaanata xusaymata ah ci kilaab fi la aminatu dajeeg yonantu bi ci askan su ko defee nag ñi la ñëpp kenn ku ci nekk am nga ci koo xam ne tabaarakallaahu moo moo la jur ca ca ñu jigéen ña soo ko doon topp ni ma la ko limalee ci ci maamam yu góor ñi mënoon naa la ko limalee ci maamam yu jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallama ci nga xam ne noonu lañu ñu jurantee ci nga mën koo xam ba mu gën laa leer ca wàllu woowa su ko defee kon nag yonantu baa ngóog ci maamam yi nañu demee ñoom ñëpp boo jëlee Abdullahi mile nga xam ne maanaam yaayam mi ngi tudd Salma bintu Omar boo jëloon Fatimatu bintu Omar ibnu Aïs ibnu Amir ibnu Maxsum Fatimatu kon moomu mooy yaayi Abdallahi boo jëlee Salma bintu Omar kooku mooy yaayi Abdul Muttalib boo jëlee aatikatu mooy yaayu Hachim boo jëlee xubee bintu xulayli kooku mooy yaayu Abdu Manaaf Fatimatu bintu Saad kooku mooy yaayu Xusay boo jëlee Hind bintu Sarir aa aa kooku mooy mooy mooy yaayu kilaab boo jëlee wax siyatu bintu saybaan kooku mooy yaayu murata boo jëlee e, maawiyatu bintu kaab kooku mooy yaayu kaab boo jëlee tabaarakallaahu salma bintu omar alxusaayu kooku mooy yaayu lu ayu boo jëlee layla tabat kooku mooy ah, kooku tabaarakallaahu mooy yaayu xaalib boo jëlee jandalatu bintu xaaris kooku mooy yaayu fihru boo jëlee atikatu kooku mooy yaayu malik boo jëlee baratu maanaam kooku mooy yaayu nadir boo jëlee tabaarakallaahu ah, awaanatu bintu saad kooku moo yaayu kinaanata boo jëlee maanaam salma kooku mooy yaayu xusaymata nga jël layla kooku mooy yaayu mudrikatu nga jël rabaab bintu jandalata kooku mooy yaayu ilias nga jël sawdatu kooku mooy yaayu mudar nga jël muanatu kooku mooy yaayu nisaar nga jël mahdadu kooku mooy yaayu maat kon nii la demee ci yaayi maamam ya noonu la soqee ko moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ci toftale googu la ko ko yàlla defalee moom sang-sang yu tedd yooyu kon nag ñaareelu bunt bi mooy dugg ci saybatul hamdi